asalaamaaleykum daleen nag jàmm dañu koy door ak Sud Quotidien muy waxtaanee cour de justice de la CEDEAO ak taxawaay bi nga xam ne moom la Macky Sall am ca moom bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication kàddu yi nga xam ne moom la ministre d'État bi ne ci wetu président de la république di professeur Ismaïla Madior Fall yëkkati di ñaan juge yi nga xam ne ñoo bokk ci CEDEAO bi daal ñu lem seen geen jëmale ci loi bi nga xam ne moo jëm ci wàllu parrainage bi ci Sénégal kàddu yooyu nag day ñëw firndeel daal ne régime bi si boppam xelam demul benn yoon ci jëfee yi nga xam ne moo bawoo ci googu le bu ñu sukkandikoo ba tey ci suñu naataango yi faree ci avenue Bourguiba lii daal day ñëw yokk xar mi karaw ci diggante nguur gi ak waa CEDEAO jëmale ci affaire Khalifa Sall Karim wadd ak wàllu parrainage bi ci loolu yépp daal Macky Sall day fësal ni daal farataalul benn yoon décision yi nga xam ne moo jugee ci cour de justice bu CEDEAO ñun wax ba tey ci wàllu politique ak laas rawatina nag li jëm ci wàllu saytu bi ñu doon saytu fichier électoral bi ku jéggi daal ànduñu benn yoon ak li nga xam ne moom la experts yi wax ak li experts ñu ngi xam ne ne fichier bii daal ñu gis dalul benn yoon seen xel moo tax it daal boobu le ci sukkandiku ngir amal ay élection yoo xam ne day jaar ci yoon loolu daal mooy gis-gisu FRN bu bokk ci ku jéggi ci jamono joo xam ne nag experts yi nga xam ne ñoo doon saytu fichier électoral xamle ne bi fichier amul lenn luñ ko mën a xarabee ñu des ak kujje googule ak waa direct news ni kujje gi daal dafa taxaw temm ni bile rapport daal du ci dal bu ñu sukkandikoo ci FRN auditeurs yi si boppam daal dafa mel ni jotuñu woon bu baax ba ñuy xamle it ne ñoom kujje gi ci atum 2012 ba tey daal mënuñu fexe ba jot ci boobule fichier ñu des ak kujje gi gi nga xam ne daal moom moo sàkk woon ñu saytu bile fichier électoral ci mujjanteel ga nag dafa dàkk bu baax a baax liggéey bi nga xam ne moom lañ ci amal waa Témoin Quotidien ak yeneen naat naataangoo yi nga xam ne ñoom lañ xëyandool tey jilee ñu ñuy xamal ne ñi teewaloon ku jégi ci commission politique dialogue national bi nag jaaree ko ci kii di àjjuma sow bu Pastef yore seen kàddu nee daal ay mbir yoo xam ne yu lëndëma lëndëm la ñu nemmeeku ci biir fichier boobulee ginnaaw élection yi nga xam ne moom lañ doon amal ci 2019 nemmeeku daal mooy ñeenti téeméeri junni électeurs yu yees yoo xam ne dañoo yokk ci liste électorale yi réew mi quotidien it mbir mi soxal ko lool rawatina daal jaarul yoon nga xam ne moom lañ nemmeeku ci biir fichier bi moo tax it ñu naataango yi ne lii daal dañuy delloo gannaaw bu baax a baax ñu wax ci leneen loo xam ne it ëttu yi ñu xëyandool waxtaane nañu ko bu baax a baax mu jëm ci lakk bi amoon fële ci hôpital Magatte Lô bu Linguère ak information judiciaire bi nga xam ne moom la ci procureur bi amal teg ko ci ndodd ki fa doon directeur ak ñaar ñu fay liggéeyee ñu wax ci mbir mi ak lii quotidien ak Sud Quotidien ñu ñuy xamal ne li ñu teg ci seen ndodd nag mooy faat bakkan ak amal ay gaañu gaañu ci doomi aadama yoo xam ne nag du seen coobare ñu des ak enquête boobule ak l'observateur bii dellu si ci musiba bi nga xam ne moo amoon ci Magatte Lô mu ñuy xamal ne ki fa doon directeur bu hôpital bi nag taqal na bu baax a baax Abdoulaye Diouf saar ci mbir yi ci kanamu enquêteurs yi muy xamle ne ci atum 2017 ba tey ministre bi ñu denk wàllu wér gu indi wu fa benn agent docteur Abdou saar ni jéye bi sax fekk ko fa woon ndax buus boobule mi ngi woon ci ñaareelam ci Diourbel l'observateur dellu si it ci li nga xam ne moom la ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ tuumaal ci mbir mi dénk waa gendarmerie ñu des ak gendarmerie bi nga xam ne daal siiwal na feeñal bu baax a baax wàllu caxat-caxatee suuf bi am ca caajaay maire ba fa daal ay carte d'identité ngir am ay terrain Abdoulaye Diop da doon jël copie de carte d'identité yi nga xam ne moom lañ doon indi ci mairie ba ngir utal ay terrain ay nit yoo xam ne sax yëguñu ko ci mujjanteel ga nag mu jaay yooyu le terrain vendredi lañ ko teg loxo moom maire bi ak ñam doon àndal ci boobu la liggéey kii nag moom kenn tegu ko loxo wante daal dund na lu méttee métti démb ndax dañ kaa finnaal teg ci nag xëpp ko suuf kooku di Guy Marius Sagna mu demoon démb ca Malicounda ngir coowalu suuf ay yéreem la ñu xotti bu ñu sukkandikoo ci les échos ñu ñuy xamal ne it ne jege ñaale maire bi di le ne ñoom ñu le ñoo dal ci Guy Marius Sagna activiste bi nag ginnaaw ni mu ñibbisee si Ndakaaru mi ngi kër docteur waa docteur ñu koy perfusion ci jamono joo xam ne ci téeméer goo jël ci ñi nga xam ne daal dañ leen war a fay koppar ginnaaw liggéey bi ñu amal ci beebu aan bi daal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp daal jot nañ seeni koppar bu ñu sukkandikoo ci soleil bi li xibaar nag mi ngi jib démb ci réunion bu njëkk bi nga xam ne kuréel bi nga xam ne moom la ñuy teg ngir saytu liggéey yi ñoo ko doon amal démb it ñu doon amal réunion conseil des ministres njiitu réew mi di soññ gouvernement bi daal ñu gën a ñoŋal dialogue social njiitu réew mi wane ne fexe ba journalistes yi am sañ-sañ ci seen liggéey ak it ñu gën a aar liggéeyub journaliste soxol na ko lool l'info di ñu xamal ne nag ci recrutement juróomi junni ci ay jàngalekat nag ci ñaari bës rek téeméeri junni bindu nañu ba noppi wante nag li ñuul ci soow bi l'info ñu koy yeggee mooy këyit yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ngir casier judiciaire yi nag dafa manqué bu baax a baax te boobu boobule këyit lu am solo la ci dossier de candidature bi ñu jàll ci wàllu tàggat yaram door ko ak waa stade bi waxtaanee Chelsea bi nga xam ne dana bokk ci finaalu Ligue des champions ginnaaw gi mu dooree waa City Zidane ne Chelsea daal dafa mérito bile qualification ñu des ci boobule match ak waa record ni Mendy daal moo tax ba Chelsea yegg ci final bi ñu waxtaane wàllu lomb door ko ak waa sunu lomb bii waxtaane combat ci diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux promoteur bi di Gaston Mbengue bëgg a dàbbaliwaat fële ca Gambie démb daal lañ doon siife mbir mi Les Échos di ñu xamal ne ci diggante Balla Gaye ak Gris mbir yi jax na ba pare promoteur bii di Gaston Mbengue nag ne dafa fas yéene amal boobule komba ci atum 2022 ca Gambie li ko soxal daal mooy tëgg combat ci diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool àndoog jàmm bonjour Cour de justice de la CEDEAO quand Macky biaise le jeu. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique le commentaire du ministre d'État auprès du président de la République, professeur Ismaïla Madior Fall, renvoyant les juges de la CEDEAO à leur copie concernant l'arrêté portant sur la loi sur le parrainage au Sénégal. Ce commentaire donc renseigne à suffisance que le régime ne semble pas prêt à appliquer la décision avenue Bourguiba, cette énième défiance des décisions de la Cour régionale vient épaissir le nuage qui obstrue la visibilité des rapports entre l'instance communautaire et le pouvoir de Macky Sall, qui par moments milite pour le respect et ou l'adoucissement des textes de l'instance communautaire. Affaire Khalifa Sall, Karim Wad et parrainage, quand Maki floute ses rapports avec la CEDEAO, commente Sud Quotidien, qui revient en détail sur ses limites qui fragilisent le respect des décisions de la dite cour. Parlons toujours politique avec l'AS, notamment le fichier électoral. L'opposition rejette les conclusions des experts. Elle démonte la mission d'audit et déchire le rapport selon Sud Quotidien et l'AS. Le fichier électoral tel représentatif démographiquement et par conséquent, il ne peut pas garantir des élections libres et équitables. C'est la position du Front de résistance nationale de l'opposition qui a rejeté formellement le rapport de la mission d'audit du fichier qui conclut à sa fiabilité à sa cohérence. L'opposition se braque et dénonce des anomalies intrigantes dans les colonnes de Direct News. Le rapport indique clairement que les auditeurs n'ont pas eu accès aux fichiers physiques et signale par ailleurs que depuis 2012, l'opposition n'a pas eu accès au fichier. Restons avec cette opposition qui, après l'avoir réclamé à corps et à cri, rejette l'audit du fichier électoral avec le témoin quotidien qui, comme tous les autres confrères parus ce jour, informe que mandatés par le FRN, les plénipotentiaires de l'opposition au sein de la commission politique du dialogue national ont livré leurs dernières observations après l'audit de ce fichier. Entre autres griefs émis par Aldiouma Sow de Pastef, leur suspects, dont le travail des experts de la mission d'audit et l'intrusion mystérieuse de plus de 400 000 électeurs dans les listes électorales après la dernière présidentielle. Cet audit du fichier Rewmi Quotidien l'assimile e à un tsunami de fraude électorale avec un million et demi d'électeurs illégaux recensés. C'est donc le retour à la case départ estime le confrère. Passons à l'autre sujet largement relayé par la presse du jour. Il s'agit de l'incendie à l'hôpital Magatte Lô de Linguère avec une information judiciaire ouverte contre l'ex-directeur et deux autres agents. Informe li Quotidien et Sud Quotidien. L'enquête menée qualifie les faits d'homicide et de blessures involontaires. Restons avec cette enquête avec l'Observateur qui relate le film d'horreur et signale que poursuivi par le parquet, l'ex-directeur de l'hôpital, Mouy Sarr face aux enquêteurs. Il n'a affecté aucun agent à Linguère depuis 2017 et lui se trouvait à Diourbel chez sa deuxième femme le jour du drame, précise l'ex-directeur de Magatte Lô. L'observateur revient également en détail sur ce que les autres mises en cause ont révélé. à la gendarmerie. Restons avec la gendarmerie, avec Libération, qui informe qu'elle cerne une délinquance foncière à Tchadjaï. L'ancien maire volait entre guillemets des cartes d'identité pour se taper des terrains. Abdoulaye Diop utilisait les copies déposées à la mairie pour attribuer entre guillemets des terrains à des gens qui n'étaient même pas au courant avant de les revendre. Cueilli vendredi, l'ancien maire et ses complices ont été placés sous mandat de dépôt. Il n'a pas été placé sous mandat de dépôt, mais il a été lâchement violenté et aspergé de sable. Il s'agit de Guy Marius Sagna, qui était à Malicounda pour une visite de surface foncière, objet du litige. Ses habits sont déchirés, soulignent les échos et les partisans du maire avouent en être les auteurs. L'activiste Guy Marius Sagna est à l'hôpital après son retour sur Dakar et est sous perfusion au moment où 90% des personnes impactées par la dépollution de la baie de Anne ont été payées, selon Le Soleil. L'info a été donnée hier au cours de la première réunion du comité de suivi des travaux du projet de dépollution de cette baie de Anne réunie hier, mercredi. Hier également, lors réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État ordonne son gouvernement à renforcer le dialogue social et plaide pour la liberté de la presse et la protection du métier de journaliste au moment où l'info informe que plus de 100 000 candidats ont été enrôlés en 48 heures. C'est la ruée sur la plateforme d'inscription dédiée au recrutement des 5000 enseignants. Le confrère signale toutefois une rupture du socle du papier vert servant à la confection du casier judiciaire, une pièce centrale du dossier de candidature. En sport, Stade le quotidien du sport titre sur Chelsea s'offre une finale 100% anglaise contre City. Pour Zidane, Chelsea mérite sa qualification. Restons avec ce match avec record infranchissable contre le Real. Mendy is Chelsea en finale. Parlons de lutte à présent tout d'abord avec Sunu Lamb Balla Gaye 2 Gris Bordeaux en Gambie. Le remake a été paraphé hier, ficelé hier par le Don King de l'arène. Balla Gaye 2 Gris, c'est déjà le show, informe Les Échos. Le promoteur envisage d'organiser le combat en Gambie en 2022 et dans Sunu Lamb, Balla Gaye 2 déclare "Je veux cinq contrats. Je suis un compétiteur et j'ai faim." C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.